ñu ngi lay nuyu di la ziar di la baalu àq ci korite gi xam ci lañ jóge waaw euh, bi ma sante yàlla julli ci yonent bi sant suma ñaari waajur saaliwu ku rëy ci man nga bala kon ngay xam ne dama la bëgg mu bañ doon làmb sëriñ Babacar dafa wax ne as gor du soppiku du xam di fakk du jàpp di bàyyi yow ak Médoune mi li may ñaan mooy Médoune góor góorlu am télévision loolu mooy reefam yow nag nga ràññee ma bàyyi ma xel bëgg ma barka démb da nga toog ba yàgg nga woo ma téléphone di laaj ci lan laa ne ma lay wax rek ni Saliou naa bu baax di déglu say question maa gis bi solo ubbeeg léegi gëj naa laa gis stade bi nga wàcc ci enceinte bi tey ma gis nga wàcc lu waral loolu. li waral loolu mooy suma doom moo ma indi ci làmb ji ñu koy yox booy Waalo Ablaye Diaw ak Iba Diaw ñoo bokk ndey ak baay Ablaye Diaw moo ma jur Iba Diaw moo jur Maguette Diaw bi jur booy Waalo Boy Waalo nag sama doom la def na trois sorties ñàkk mais li ma neex ci moom mooy heure buñ ko daanee kenn du ko diri ndax buur la day jog félicité waa koñam dem may gërëm waa buur bu baax ndax booy waalo dafa doon na bëree ndax yaa ngi xooba jaw bi nga daan dégg mu bëreeg Mbaye Guèye bëreeg Robert bëreeg Papa Kane bëreeg Yaako Sarr maamam turu booy waalo bi sax daj naa ci lu ne bu doon sama sago Yankhoba jaw bu waalo lay tudd mais di bet que tur wi dem na ma muñ ko dem ma nag dama ni ko du ma ñëw ci stade bi tardif me lay ñëw nga bëre xam ni boo dee ndaw sa yaay di jigéen ju jàmbaare di jaay jën te bu jëndee jën nga yenu jën yi dugg ci koñ bi di ko jaay lu mu yàgg-yàgg sa barke waajur dana la topp ma bég trop ci victoire bii di ñaanal ménagère am di ñaanal mbër mi mu doon bëreel xam ni lii làmb rek la booy waalo ñàkkoon na tey mu ñëw am may wax rek ni maa ngi félicité sebooy waalo papa booy jinneet andi na ma ci làmb ji ndax mercredi bii passé dama tëdd à huit sama téléphone sone ma yëkkati mun ma koo kana man man la Père Diaw man la man la papa booy jinne xoolal sa téléphone à huit ci suba dugalal naa la ci loo jënd suukar war warga kon Papa Boy Djiné maa ngi koy ñaanal yàlla ndax làmbam ji sonn na ci lool maa ngi ñaan yàlla mu yor ndam yàlla defal ko ndam tey pour mu am ndam du ko wàññi dara moom yàlla moo jokkeel yëpp dañu nekk ci danger waaye yàlla daal maa ngi lay ñaan ci sa ñaari jaam yi entre Jokal ak Papa booy Djiné tey nga mayal ñu Papa booy Djiné bu benee ne yow yàlla nga may jokkeel ndam ba nga laaj ma leneen. waaw ah, suñ génnee ci stade bi nag dañuy ñëw ci combat yi xam ne géej waaye moom lay préparé ndax xam nga ne diggante Eumeu seen ak Sa Thiès diggante Balla gay 2 ak ki nga xamante moom mooy Tapha Tine ki nga xamante moom mooy euh, euh, Tapha Tine ñëpp gis forme bi nga xam ne moom la indil Balla Gaye 2 Balla Gaye 2 dem fi nga xam ne moom mooy France dem entraîné ji tey nan ngeen di préparé combat boobu ak combat Alioune Seye bi nga xam ne bis ni tey lay am di dimanche. waaw Tapha ak Balla Gaye yëpp suma njaboot lañu ndax dama am ay xarit bawal mais Balla Gaye sama doom la mais Tapha lii ma gis mu yor ñu yaakaar ni doole la du doole eh. Tapha bëgg naa combat ak Balla gay neex ba pare yàlla may Balla Gaye ndam mais lii ñu gis arrangé wul Tapha te man nag tollootuma foo may xaste wala may wax lu bon mais Tapha Tine ko teel a indi dégraissé ko ba mu am taay boo xam ni dana mën a mobile pour ñu bëre bëre bu neex may wax nag Balla Gaye bu seetaanee lii ma wax. lépp lu muy def INSEPS na ko nëbb bu dara génn ci site yi bu dara génn ci télévision yi te na teel a ñëw te def recrutement di entraîner ngemb guddi ak bëccëg waxuma poids de waxuma dóor saak dama bëgg mu teel a ñëw la mu doon jox sëriñ si na ko dem recruter ay mbër ànd ak ñoom liggéey bu bis baa ñu bëre Balla Gaye daan loolu mooy li ma lay wax yow est Tapha Tine def retour dégraissé wàññi poids est-ce que du moo gën ci yéen. li may wax lu wér la man waratuma juum ci làmb Balla Gaye bi muy bëreeg Bombardier barka démb Bombardier di ko gagné li mu indi dara baaxu ci te Balla Gaye dafa géré combat bi ba combat bi xawoon na niil kon Balla bu demee ba dellusi si xam na li koy xaar day bëre. daan bokk ci làmb ji daanul tabatin xale yu ndaw yi taxoon Balla Gaye din son idole ñu yàpp ko kon làmb ji làmb la joo xam ni Balla Gaye fii mu ko teg xam na ko fi ko tabatin teg xam na ko làmb la joo xam ne daal baa Ndiaye mi ko tëgg moo tëgg bis boo xam ni li ma bëgg ñun waa Géejawaay décidément dinañu fanaan si ci stade bi samedi bët set di mais ma wax rek ni Balla Gaye lépp lu muy liggéey INSEP sa na ko nëpp bu desee deux mois na ñëw te bu ñëwee na recruter ay mbër na entraîner guddi ak bëccëg bu bis ba jotee bu nu jàkkaarloowee nga xam ne métier day mokk Saliou Ba mënatuma la wax leneen. Ah, xale bi nga xamante ni tey lu métti waa géej way bokk ñu ci ñu leen ko teg muy ëmma seen war a jàkkaarloog seen doom seen rak di Sa Thiès te nee nañ sax daa xam seen sarax. waa sarax daanul kenn. ah sarax ah. mbër ci moom la yem. dama bëgg Sa ah. nee na soxlawul conseil. Ah. mais moom moomunu eh. man de dewuma ci moom. mooy ñëw ci man. wala mu woo ma. waaye bu ma ko doon mbay ndam. du ñëw ci làmb ji am ndam. mais na xam ni ma ngi bëree combat bu dangereux na déglu ñi mu war a déglu géej nag maa ci gën a ñàkk xam-xam. na déglu ñoom Mbay Sàmba déglu ñoom Njéylum déglu Balla Gaye déglu Lac de déglu Baye Ndiaye déglu Aziz man bu ma déglu waaye maa ngi koy ñaanal ndam waaye bu yaakaaree ni combat am ak Eumeu Sène bu ndaw la loolu lu muy wax la mais xam na ni làmb dëgg lay bëre ñi ko jógee nañ ko ko wax bu déggee sama kaddu xam ni man loolu laa ko war a wax mais bu nee soxlawuma conseil kenn waxul dëgg Sa boo nee soxlawoo conseil yu kenn waxoo dëgg ñun dinañu la conseiller wax la sunu xalaat teg la ci aw yoon nga ñëw tegu ci yoon bëre daan foofu laa mën a yem jërëjëf. ah Diaw li ma ciy mottali mooy Eumeu Sène âge bi mu am ak Sa Thiès âge bi mu am nga ne euh, xale bi daa am combat bu rëy lu tax nga wax lool dama ni Eumeu Sène ak Sa Thiès du ñu bëri six minutes. te Eumeu Sène am na compétition six minutes bala doole Sa Thiès jeex ndax su ma doon Sa Thiès li ma koy du ma ko wax fii mais juróom benn minute duñ ko bëree juróom benn minute yi nag Eumeu Sène mu am vingt cinq ans mooy bëre ko am vingt ans ba pare expérience bi bare kon Sa Thiès ñooñu muy waxal ni bu leen ma conseillé ñooñu lay nax mais ña muy déglu man dégluwu ma nag dégloo gu ma kon ndax lu ma wax ñu polémiqué ni Père Diaw xoolal li ma wax Sa Thiès sama dooma Sa Thiès soxlawuma ci moom dara Sa Thiès mënumaa defal dara man sama lépp mat na waaye li ma doon làmbaa ma ko def te nitu géejaway laa baayam laa bokk naa ci ñi sës kon même bu ma ko dul gis na respecté combat bi Saliou Ba mënumaa yokk mënumaa wàññi ba nga laaj ma leneen. dama gis Sa Thiès ay combat yu bari day gaaw. te da am ndam. vitesse boobu su ko mënee yokk na ko yokk bu mënoon daan Eumeu Sène ba ñibbi te kenn du xam nu mu ko daane bu mu ko calculer bu mu ko sóoraale loolu mooy li ma lay wax. démb sa diggante kër euh, sa sa sa diggante ak Aziz lan la. Zal loolu dama la ci may dara Zal Zal dama lay may dara barale wu ma Zal maa la may lii. ci question bi. ci question bi nee na may na ci xaalis xaalis bu bari la ma jox sa diggante ak Aziz non non Salba su amoon ay millions dama koy may. lu waral loolu. xale biñ doon mayee démb. waaw ànd baayam juróom-ñaari at ay noppam ñuy soogam takk mu am taaw tudde ko baay aale amaat doom tudde ko yaayam mooy maman. sama xarit boobu di sama rakk jooju di sama waa jooju di sama lépp ca Makka la ma wooyee ni ma damay maye sa doom kon jox na ma cër bis ba rakkam bi ñuy wax njaag ñu bokk bàyyi Aziz yar ko te Aziz di idolam waaye medun lii bul ko dagg kenn ko dagg Aziz moo formé Baye Ndiaye Aziz moo forme njaag mm. Aziz moo formé ay rakkam Aziz moo topp magam Aziz moo am kóllëre Aziz moo baax Aziz moo sensé wul andi démb démb ñetti grand boobu la ma jox jox ma xaalis bu bare te bi ma fay dem sooruma loolu lam medul xam na ni ku fa tudd Aziz may naa la xaalis waaye nag bàjj bi démb maam Binta yàlla na yàlla jéggal ko ñuy gërëm Miss Ndiaye gàcce ngalaama sa wujj génn àdduna nga yor ay doomam yar leen tett leen ba ñu toll ci am jëkkër nga maye leen bàyyam démba nee na ko may naa la këru juróom benn fukki million ndax sa li mu daj ci man loolu laa la mën a terale jënd naa oto jox la kon laayeen yooyu ñu ko dénk nañu xam ne maman am na baay nañu jàpp maman ñun dinañu jàpp maman mbégte gi ma am démba masuma ko am maa ngi ñaan sëy bii sëy bu ku ñu mas a def sëy bii yàlla bu ko ci benn ëpp barke mais kontaan naa ci Aziz xool na ma ci biiri bët jàpp na ma wax naa ak man teral na ma jabaram yi teral nañ ma yaayam teral na ma Aziz fu mu jëm yóbbu na ma fa ma wax ni damay bañ a yéeg waay waay kontaan naa Aziz kontaan naa Baye kontaan naa Ndiak kontaan naa juma ji nga tabaxal yàlla sunu borom jëndal sa yaay kër tabax juma yàlla dan la fay yow Ndiak kon maa ngi yemale foofu suma kaddu di wax nii li nga ma laaj looloo ma ci gën a neex jërëjëf jërëjëf jërëjëf. ah mënumaa dugg géej ba jën koo xam ne bis ni tey di dimanche Alioune Seye numéro 2 day daan te Alioune Seye tax ci yow mu nekk mbër moo xam ne ci géej waaye kenn dàq koo bëre combat yi nga xam ne combat dër bi yëpp da koo perte tey dimanche nan ngeen nar a ñëwee. xam nga danga ma laaj. ci yi ma gën a ñor moo tax maa ngi mel ni ku daw huit kilomètres ndax man du ma waxee làmmiñ man dënn laay wax Alioune Seye yàlla na ko yàlla fay xolam ci làmb waaye nag li dal Sa Thiès moo dal Alioune Seye mbër lay bëreel Commens mbër la Alioune Seye na respecté Commens te bu ko sóoraale li mu xam te mënoon ko te di ko daane mbëri na ko yokk ñëw daan commerce dem ci beneen chemin jaadu na mu amee étage jaadu na mu amee kat-kat jaamu jaadu na bu dimbali ñi koy topp mu nekk xale boo xam ne zéro faute Aliou Seye manu ma dul ñaanal ko yàlla bu bis baa ma sañse ñëw ci làmb ji moom lu ko yàlla jox yàlla na doon ndam ci daraja yonent bi waaye géejawaay daal ñu ngi ci bis yu mag ñu ñaan yàlla bis yooyu yàlla suturaal géejawaay euh, mon frère Alioune daal yàlla na ko yàlla suturaal Alioune Seye yàlla na ko yàlla jàppale waaye na déglu Arona déglu liiru jaan góorgóorlu teg bakkanam ndax làmb jooju ci lay amee teranga làmb jooju ci lay ñàkk teranga kon nag Alioune Seye yàlla may jàppale yàlla na la yàlla jàppale jërëjëf jërëjëf jërëjëf. yow sa kaddu gu mujj suma kaddu gu mujj mooy di la ñaanal Saal di ñaanal Médoune di wax ni man aw ma jotu wax ci chute di dellu rek di wax ni président bu bees bii Bassirou Diomaye Faye ak président Sonko maa ngi leen di woo ci littéralu Guédiawaye Sonko yaak Diomaye président Diomaye ñëwal ci littoral bi littoral bi séddoo nañu ko littoral bi séddoo nañu ko doomu géejaway amuñu ci dara amuñu ci palto amuñu ci place ma lay wax ni maa ngi def sama alerte ndawu géejaway yëpp amuñu kër te nag bi Géejawaay naqadee suñuy maam ak suñuy baay ñoo yor Géejawaay quatre ans suuf si. waaw séddoo nañ ko. suufu géej na. te suufu géej boobu c'est du l'or. terrain bu dee ma ngi jar vingt millions. Uh-huh. ay doomu géej waroon ko moom. Uh-huh. borom wërsëg yi ñëw xëccoo ko. Uh-huh. ak leader politique yi. Diomaye yi maa ngi lay woo. yaak président Sonko Sonko nag. à l'avance ngay falu. waxoon nga ni littoral bi. ku fi tabax R plus 10. di nga ko daaneel teg ko ci aw yoon. yéen ñaar nag xam-xamu suuf ngeen yor. ñun waa Géejawaay. suuf si sunu bakkan lañ ci teg te yow jomaay soo faloo géejawaay ñoo la fal sonk boo faloo géejawaay ñoo la fal ñëw leen contrôle littoral bi ñi ko jël du ñu jeexal ay kër jeexaluñu ay moyen géejawaay suuf si doomu géejawaay yi ko moom nañu ñëw delloo leen ko du ma yokk sama wax te du ma ko wàññi te li ma la xam nga ko jërëjëf jërëjëf jërëjëf. yow du ma génn ci politique ba tey ndax dama dégg ci mairie géejawaay di Ahmed Aïdara di la sànni ay kàddu. non dootuma détail ci loolu. Uh-huh. la ma doon wax. li ma wax nii. Uh-huh. xaayeen ku dégg séeréer. man waxuma waxi kenn. Uh-huh. waxi jomaay ak Sonko laay wax. nanu ñëw ci géejaway taxaw ci littoral bi xam ni. borom wërsëg yi séddoo nañu suuf si. te suuf si doomu géejaway yi ñoo ko moom. nañu ñëw delloo ko waa géejawaay loolu mooy sama kàddu gu njëkk. mooy sama kàddu gu mujj jërëjëf jërëjëf.